forage baa ngi nii di xel li kër yëpp a ngi am ndox waaye ñun ñii dëkk ci biir xayra nee naa leen téeméeri kër yoo jël juróom yi dongay am ndox ñi ci des ñëpp kenn du ndox li tax xayra seen jàmbat naqaree saafara mooy dafa am ñu fi dëkk ñoo xam ni ndox mi dafa dem ba dañ ci xonet nga xam ni léegi àgg na ci dañoo mujj sax uti ay teen bari na fi xayra biir xayra ñu am ay teen ci seen biir kër lu ko waral mooy ñàkkum ndox. 24 millions 910 mille cent dayoon na ci xaalis. ñu gis ni loolu ëpp na ci pompe ñu dem ci maa u rahma demee ci maa u rahma ne leen danoo bëgg jënd pompe waaye defaraale réseau bi ñu ne ñu danañ leen booleeg ak ay techniciens ak waa OFOR du ngeen ci fay dara ñu ànd ak ñoom ñu ne ñu bu ngeen defee nii da ngeen am ndox ñu jëndal leen mboolem matériel yëpp facture yaa ngi nii. day mbir boo ci bokkee. am ca la ci ñëpp am ba noppi nag ñu ñu xañ la la nga ci am nag di ko jox ñeneen moo ma jaaxal quartier yi fi ma judd képp barki dem boo njaay foofa dem da ngay am ndox te ñun mënuñ koo am forage bi li muy li muy nekk fii yëpp dafay sampe ndoxam mii bu toqee feneen la jëm mm. waaye jëmu ci dëkk bi mm. ñi jege rek ñoo ci mën a ñàkk ñi ko jege rek ñoo ci am mm-hmm. maag Serigne Bassirou Serigne Jilé ak Serigne ñëpp kenn ku ne da nga ndox mm-hmm. xayira ba 2 ñu néew ñoo fi am ndox kon nag ñu ngi ñaan sëriñ bi nga xam ne moo ñu jabatu ñun ñëpp mu jàppale ñu dimbale ñu ci lii ndax am na ci loo xam ne du ko yëg